te sant xaadimu rasuul ngir yàlla te dellu sant xaadimu rasuul xalifatu rasuul fil wusuul te sant xaadimu rasuulillaahi war na julit buy taalu benn billaahi seyxu siyooxi seyxuna alxadiimi maa lay bilal ak lil maxdoomi aslamtu nafsi seyxuna alxadiimi nangul ma saa jébbal defal ma man saxaadatu daarayni diyaari këri mbarke yaayal këri bintul xadiim maymuunatul mbakiyu lil miisatul xadiimi may sakiyu maay way di la siyaarey sant ngir yàlla maa ngi ñaan taxaw ne am na xaraanu denan am bànneex jébbalu waa nang nangu naan dal ndox mu neex musiba yeeg balaa yi ci mucc noog sunu njaboot gi bu nu gën di moo tax ba maa ngi dellu sant yàlla. daare bii Cheikh Moustapha Mbakiyu moo ma ko dénkoon daana sol makiyu Cheikh Moustapha noon na xamal ak taalibe moo di yoon wi defal ak taalibe amal ngor ak jom jaamu yàlla seexlul bi daaray sunna mooy yella moo ma dal jaay sama njuréel man jëndee ko ak taalibe Cheikh defal nu jannatan ilal jannaati ziyaari këri Mbàkke buñ ñeetaate te fan bu gudd ànd barke fegal am ndong ndong njaboot ji Mbàkke saaxol cofeel feese maa la sopp sama cofeel ci yow xajul ci nopp ahousubillah bisimillah inna waliyallah hasbi allah wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi mbokki jullit yi taalibe murid yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte mu rëy ci bis bu màgg bi nga xam ne mooy bisu laylatul xadr di bis boo xam ne bi suñu borom subhaanahu wa taala waxee ne sahru ramadan allazi unsila fihi alquran teg ci ne inna ansalnaahu fi laylatil xadri ci la ñu xam ne kon ci guddi laylatul xadri ci lañu wàccee wàccee alquranul karim laylatul xadri nag nekk guddi gu màgg loolu nag ku ne xam na ne sëriñ Touba lépp loo xam ne ñu ngi ciy tudd alxuraan kenn jiituwu ko ci kenn ëpp ko ci ab cër ndax li mu ci liggéeyal yàlla ci wàllu woowu liggéey bu ràññiku la koo xam ne fa nga tàmbalee rek mooy lal bi ngay tëdd alxuraan nga cay tëral di ko sotti ay parfum di ko tagg kon kooku cëram ci alxuraan lu ràññiku la cër boobee nag lii lépp ci taxawaayu soxna si dafay wane ne sëriñ tuubaa seq ko kenn tax mu tànn ki gën a féete tu tànk ci njabootam jagleel ko ko ndax loo gis rek cër la bu suñ borom di cërale loolu moo waral tey fépp fu ñu tudd laylatul xadri ci réew mi sa xel ci soxna may mënatu mbàkke rek lay mën a dem loolu nag kon dañuy delloo lépp ci sëriñ Touba mi nga xam ne mooy woy juram ndax nekkoon na fi ak i kilifaam ni ki Cheikh Mamadou Fadil njëkk ko cay jox ndigal ak mboolem ñi mu bokkal Serigne Touba góor ak jigéen ñëpp féete ko ci ak mag te téewul ñu nangul ko cër boobu mu féete leen ci ñoom itam nag wóotu leen ci itam loolu kon dafay wane ne Serigne Touba li ko alxuraan jaraloon euh, ba bisu laylatul xadir bi nga xam ne ci la alxuraan wàcc loolu moo sabab kenn ci njabootam taxawee ko muy soxna Maymunatu Mbàkke wóotu ci ñëpp soxna si nag ku ne xam na ne loola rek la tegoon bëtam muy fas ci yéene mottali liggéeyu Serigne Touba ak li nga xam ne moom la ci wutoo njabootu Serigne Touba gi ku ne xam na ne àggoon na ci wutal ko tool sax boo xam ne moom lay liggéeyal ngir bis bii tey lépp lu ca jógee jànkati alxuraan yi la koy jox séddale leen ko ngir ñu koy waajale bis bi ngir mën a am dal ak teewlu la ñuy jàng lépp mu delloo ko àddiyee Serigne Touba bañ na ko ba wutal ko kër spécial ngir loolu muy laylatul loolu kon wane na ni cëram la te cër bi nangu na ko xam na ko te téye na ko loolu euh, lu bare bari fekke nañ ko ci ndax bu bis bi masaana si li muy njëkk a it mooy daña dajale euh, mboolem njabootu Sëriñ yi di leen berndeel di sàkk ñoom ñëpp ñu doge si fa moom mu boole taalibe yeeg ñëpp kenn ku ci nekk la ca war mu di ko def euh, loolu nag taxawaay la bu ko boo xam ne bii xam na ne Sëriñ moom kenn mënu koo fay moom nag kenn ku ne da ngay seet la nga xam ne moo ciy sawarteef ak fa ca sa man-man toll nga di ko doxe waaye moom da ciy yóbbaale woon ñu bari wuutu ci ñu bari moo tax bis bi mosu koo dencal dara taxoon na it mu ne bu soxlaatul sax kenn di ko wutal benn bis gannaawam bu dul bisu laylatul xadri bi kon yàlla nañu ko yàlla fayal kon daal bis bi bisu jullit yi ñépp la nag waaye nag képp ku bokk ci yoonu murit war ngaa xam ne bis bi soxna si taxaw na ci wàll woo xam ne wi kenn fekku ko ci eh, ba sëriñ Touba mook ko le loolu mu ko cërale nag moom it xamoon na ko jàpp na ko bu wér ànd kook bokk yi ak taalibe yi kon yàlla na koy yool bi fekk fa mu nekk di sant soxna Bali mi nga xam ne it moo fi mag ci njaboot gi ak Serigne Mouhamadul Mahfous ñoom ñu taxawee bis bi taxawaay boo xam ne bii bëggu soxna si rek lañ ciy dàkk te xam nañ ne fa ko soxna si bàyyi woon yokk nañ ci seen kem kàttan ba taalibe yi kenn ku ci nekk boo duggee dangay jàpp ne sax soxna si mu ngi ci biir loolu lépp kon seen taxawaay la te li ci am solo mooy dafa am loo xam ne nag boo ko donnoo da ngay fexe mu yokk te bañ a wàññiku te ñoom doxin woowu lañ doxe kon yàlla leen fi yàlla yàggal te may leen ak wér te mottali yéene yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah day tàbbi fil jinaani fi yawmi jum'atin te lay fanaani neexoon ma doon waykat ni Cheikh Moussa Ka ba ko marsiyaa ka baaraka Moodu Kabir ka doomi Cheikh Moussa Ka wayle ma ndax ñu rey Sëriñ Moussa Ka mooy werekaalu yoonu Cheikh Bamba amul morom kenn moom ba ñimba يساك الله فيك شيخ موسى ku jëm ci yàlla sëñ Touba ñu ne maay sëñ Touba la yàlla dogal sëñ Ablaat noo ne fii sëñ nekk wutuñ ci wéetal bëgguñu ci xarit day dëgg goo xam ne ci lañ war a jaar kon sëñ Touba kenn du ko yemaleeg dara yéen nag da am cër lii sëñ Fallou ko ko digaloon moom ma ko joxoon digal na ko da nga ci rey ay gëléem danga nga ci rey ay nag barki démb la sëñ Abdou Fatah yónnee aw nag yónnee gëléem na ñaar yëpp daa tudd jóge ci làmmiñu sëñ Fallou koy wax na ko da nga nag ba rey ci loo xam ne kenn xamut lu mu doon soxna may galas dem wuti ak banjool te keroog ba ko bàjjanam yii nag nga xam ne ñooy soog a jóg yéene doon seen ñi leen di wuutu da ngeen wax ne yokku ngeen soxna Bali nee na yokkoogu leen ngeen di gisagun seen liggéeyam day la seen wàllu bopp jotagu leen ci. nee na da ngeen yokk ba yëgal seen bopp du ngeen ko wax kenn ku leen gis day xam ne yokku ngeen nee na loolu moom da leen koo fàggul soxna may galas nag sëñ toujours soxna baali daf koy andi na ko lii de dama koy barkeeloo ci yow sa baay moo daan wax lu ko neex mu am damay bëgg ñi nga xam ne dañuy ñëw ci laylatul xadar ji ñuy gudd fan te wér di fekki déwén wax na ko njabootu sëñ Basiiru Saar fii bañ ko ko waxee ak léegi kenn ñëwu ci ne ko diw bàyyi koo fi kon nag nee na moom la leen di denkaat ba ñuy dem Màkka 1968 bàyyam maam Cheikh Anta da ko ne woon ruu yaa ngi nii mu ne ko garanti naa ko dem ak dikk kenn du wopp kenn du faatu kon nag soxna si nee na ruu yaa ngi nii la garanti ko sa barke Baye sa barke Badiane ñëpp fekk wàcc ci barke Serigne Touba soxna si nee na xolam sedd na daayira fii nekk bari nañ waaye da ngeen di borom kër gi te soxna si du cof day téye rek sëñ Tuba nee na du ma cof ku yàlla bind dama naan la nikk téye dooma aadama dafa diis xajut ci cati baaraam te it wa amma bi ka faadis yàlla nee na bu ma la defale tee xéewal yow yonent bi dee ma sant kon ku yàlla defal xéewal boo santut da ngaa wet presse bi teew fii soxna Bali nee mi ngi leen di sant ndax daayiri bi rek ku ko ñor bu ngeen ko ko jëlalee nee na mi ngi ñaan na ko génne mi ngi ñaan ku ko génne ku ne rek am sa télévision boobu télé buñ ko génnee na ko murid yëpp di seetaan ak rajo yi rajo sëñ Cheikh Ndigal yow rajo Baye Fall nga da ko waroon a direct <laughs> yow da ko waroon a direct sëñ Amet Sougou sëñ soxna